wax loo xamante ne bii góoma ni mës nga dégg ci kenn hmm. nga ci wàllu baatin nag laa lay wax bi Touba lañ koy joxe ci baatin laa la lu hmm. tax est-ce que yow xamoon nga ni Obama muy doon président ñëwoon na ci sëñ Saliou xamoon nga loolu loolu de maa koy doog a dégg tey hmm. man maa koy maa koy so wax ci sa émission bi ñëwoon Mauritanie lañ ko jaarale Nouakchott jaarale ko ci oto mu jaar génne gi Rosso Béthio ñëw ro génne Rosso Mauritanie ñëw Rosso Béthio ñu indi ko ci sëñ Saliou xamaloo ñi ko xam bariwul mu wax sëñ bi ne ko Amérique africain war na ko mën a jiite pour wax la ni la rek pouvoir bi fee lañ ko joxe la <laughs> xam nga nag bu fekkee secret jàmbur laa lay jox ba pare nag bëgg laa jox lépp itam journaliste nga mais loolu moom <laughs> dégg dinaa la wax dinaa la wax leneen wallaay gis nga am na nu mu doon comporté woo ci campagne am ak nu mu doon comporté woo ak nit ñi. Hmm. Serigne Saliou ko ko digal. Hmm?